génn Ayo euh, bébé euh, déjà c'est deux millions de vues uh-huh. loolu laa gis ci chaîne YouTube bi bokk ci tendance yi xale yi di ko TikTok ah, ñëpp di ko fooy il fait partie des meilleurs de sa génération ah, Euh, bariwul nag lu ñu koy dégg ci ay mbir. parce que non seulement il a son style et euh, am charisme ci li muy def am ci cër bu baax a baax ñu koy wax Demba Guissé moom la ñuy recevoir dans quelques instants en attendant regardez euh, la dernière vidéo bi mu def. ak benn icône ci musique africaine ñu koy wax Baaba Maal ñu doog a dellu soit nag dalal ko Demba Guissé dans quelques minutes sur le plateau

bijan ma taw koy bonno be nene yo kono no fusi galle serni adobe aca Demba Guissé sur le plateau bi ñuy wax nag euh, euh, musique sénégalaise dafa war a génn dañu am war a am relève euh, bokk na ci ñi njëkk a taxaw ne moom daf ci bokk représenter lu Sénégal ci ay concours yu mag fii ci Afrique bi moo xam Mali wala ci yeneen yi dëkk remporter ay concours yu bëri man nag de temps en temps Samira mhm. su may seetaan yenn vidéo mi wax dëgg yàlla damay xaw a sax am kersa ndax da cee teel a dugg <laughs> te bi mu ciy dugg jamono jooju ay sabadoor la daan sol yu doy waar ay xeetu yére yoo xamante ni boo gisoon Demba <laughs> fii rek la mënoonu mujjee wax dëgg yàlla dafa am talent dem nuyu nañ la am mbégte dalal la bu baax. ayca jëla jëla sa micro. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu euh, Samira d'abord. ndax dañu def parité quoi. Mm. ok Samira laa njëkk a nuyu. Mm-hmm. jigéen Sénégal yëpp di nuyu nag xarit Kels. <laughs> Mr Demba di kontaan ci teewaat bi fii ndax man peut être mën naa ne lu si bari. Mm-hmm. saa su ma génnee dara rek. Mm-hmm. damay daw si ñëw. donc maa ngi soog a euh, génnee clip ak Baba Maal. dama ñëw doxantu waale waxaale événement ak yooyu ñu waxtaanee ko rek. waxtaanee ko alors gis naa ni 2 millions de vues euh, ci ci 3 mois. AEBB waaw waaw c'est vrai waaw c'est may waxaat gaa yi nañ ko gën a xool rek ndax gars yu bëri foo leen gis AEBB oh, ñëpp a koy dund donc di ko di ko di ko di ko savourer yaa ngi dugg ci TikTok bi yaa ngi gis yow ñii TikTok AEBB waaw dañ ko bëgg Sénégalais yi la rek tey damay modeste quoi <laughs> dañ koo bëgg il n'est pas modeste nag <laughs> xam nga lu ma bëgg nga laajal ma ko Samira laajal ma ko ndax moom personnellement xam na ndax woy bi dafa neex. moo mu ah, la tontoo rek nga kontaan non non Samira. Uh-huh. Hmm. kii dafa bëgg a topp ay cas. aywa ah, man noonu laa bëggee topp ay kaa wax yu sew rek laa fi nekk. xam xam nañ ma génnee keroog pourtant sérieusement bi ma duggee studio. di ko en enregistré euh, bi ma ki ñu ko teg après dama toog sama oto déglu ko ma ne mais dafa neex. dafa neex. après ci laa ci la laa ne non bon c' est vrai man maa ko woy parce que mhm. nekkul maa ko woy parce que moo tax mu ne dafa neex mais même bu nekkuloon man maa ko woy sax kenn bu ko woyoon mhm. mais woy bee neex ah, mais est ce amoon nga ci xaaroon nga ci lii lii yëpp vues yi ah, de vues bien sûr xam nga euh, millions yi bett ma parce que dafa neex <laughs> démb bi ànd naa ma des ci yéen <laughs> non non <laughs> bi ma koy wax boobu duguma studio xam nga defaa nga xalaat dara ci sa oto nii di xalaat nii xalaat nga xam ne di boo ko génn day neex quoi ay bébé loolu moom ci dal hmm. dafa neex te te waye gu ma koy studio te dégg naa ni tamit ki ko way dafa baax kan ah, waaw waaw loolu nag yàlla def na ko vraiment waaw ah, parce que wax wax dañuy wax wax sa mbaax waaye man damay topp say wax rek ma gis rek laa du wàññi sa bos dara mais aussi wax sa sa mbaax du waañ sa mbaax waaye dara donc nit ku baax laa ñëpp xam nañ loolu moom ñëpp xam nañ dëgg bëri jàmm bëri jàmm bëgg jàmm bëgg ñëpp ñëpp bëgg ma ma rafet xol lool lu ma am bokk doomu aadama yi macha allah ci man donc euh, je me remercie beaucoup <laughs> remercie sama bopp tey yaa ngi <laughs> <laughs> nga ñu vidéo bu nice nga ànd ceeg ki nga xamante ni mooy la légende la légende de Baba Maal nga xam ne kenn dootu ko présenté comment s'est passée seen collaboration. Baba Maal je suis le fils de Baba Maal. Mhm. waaw parce que nag euh, yàlla def na ni que euh, euh, moom kenn du ko présenté ci monde entier. e eh, mu yàgg nag reprendre ay woyam boobu fekk xëy na moo sama papa xarit la woon bu yàgg moom wax na ko partout que ne Demba li ma boole ak moom du moom d'abord papam la mhm. donc kon ma judd nag bëgg ko aussi di ko représenter partout fu ma dem su ma génnee euh, euh, euh, ci sous-région bi donc baab Maal rek laa doon woy donc yàlla dogal nag concours bi ma bokk rek nekk meilleur chanteur donc concours ma mujj bokk je pense que Youssou Ndour peut être xeex bu bu bu bu bu bi ma àndoon ak Bouba Ndour vraiment ma nekk ci meilleur chanteur mais avant tout ça Triplex L la nekk njëkk a nekk meilleur chanteur en 2005 Oscar de vacances en 2007 ma nekk meilleur chanteur macha allah Kasanga Sénégal en ma nekk meilleur chanteur ma dem Mali ci 2010 min nga Afrique jël deuxième représenté en Sénégal dellu si waat fii Sénégal ñëw si xeex si biir Youssou Ndour mi nekk meilleur chanteur. Mhm. ma ne nag ah macha allah waaye nag damay arrêté concours yi. après ci laa def ay single ak daal di prouvé. waaw kay xam nga def samay affaire bopp yàlla def nag may may dem ay ay Mali. di dem yeneen dëkk ci Afrique aussi euh, boole koog yenn yi may def ci benn ay Lyon Mantes la Jolie Bruxelles. Suède ak yooyu xam nga waaw Mantes la Jolie nag sama sama. sama dëkk la bari nañ fa loolu euh, euh, ci loolu <laughs> mooy xam naa ci dara di nuyu euh, waa Mali mhm. Mhm. parce que dañuy def benn ay festival chaque année mhm. chaque mois du mois et c'est très important ki koy def mu ngi tudd l'initiateur c'est Abou Guitey moo def moom mooy c'est lui c'est lui l'initiateur de Bamar Bamar nag bon kooku tey dafay promouvoir musique africaine et c'est important mhm. euh, un gars très engagé une personne bon donc buy promouvoir euh, tout le temps musique africaine et important mhm. muy mhm. Bamar au Mali euh, ki koy def mooy Abou Guité d'accord donc mention spéciale à lui que c'est lui l'auteur quoi bi ñu déggee duggee ci Covid bi également xawoon nga marqué benn pose bu ndaw ci côté spectacle yi mais là reprendre nga su ma juumul tey ce soir yaa ngi jet café tey ci soir maa ngi jët café donc tey parce que man sama soir day neex. tamit waaw aussi. ah day neex trop quoi boo ci ñëwee. loolu Samira foog mu ñëw fekkee si. Euh, non Samira il faut mu ñëw tey. parce que yàlla dox na ni li may tëgg bariwul. Mhm. Uh-huh. mais su ma wootee. day neex li ma bëgg quoi dañuy neex. même bu fekkee yàlla fa dogaloon nga ñëw te fekk sax soirée bi indiwul woon da ñëw pour reer si nii rek <laughs> <laughs> ah, sa sa joie de mm-hmm. euh, à part clip bi mën nañ yeneen projet yooyu ñëw yeneen projet am na que maa wax sànq Bamar mm-hmm. euh, tant que on prépare quelque chose au Mali que je pense que en ce mm-hmm. moment ki mu ngi foofu donc et important des fois de déplacer u fii di jéggi frontières yi c'est important quoi maa ngi ci projet yooyu également maa ngi ci nag defaat sama anniversaire di ko waajal waaye rek euh, bu yàlla defee corona bi gën a euh, avancé rek yàlla def jàmm ko uh-huh. euh, ci kaw loolu damay damay damay damay damay nga may ma rek ñaari personnes yo mën ta ñàkk Umu Ndiaye moom mooy présidente mooy présidente Anga Bara Culture Marien à Mali donc euh, mu Ndiaye ku baax aussi vraiment bu yëngu aussi si culture nekk aussi ba Bamako. tey yaa nga ko ok ak yi xam nga xam mooy président euh, euh, FASEM. FASEM nag mooy association bi gën a mag ci Mali daaw da jox mooy président bi ku baax lool nga xam te ni képp ku fay sénégalais vraiment mhm. jox nga ko bopp quoi te c'est important ko jox tey ah yow ko maa nga fa tey euh, ki ko ki ko ki ko war a def suñu frère la Padros war a tëggal tëggal ko association fans club Padros bi yëpp ñu koy waajal tey si mhm. ngoona ah. mhm. ki ma ko tuddee nag aussi nekk suñu xarit suñu frère borom Hollande di Pape Diouf jeex na ah, doomu mère Ami Collé magu baay Maguette mu gis euh, euh, jarbaatu Cheikh Diouf mm-hmm. magi euh, maaraam ñi jot noppeekuñu ak aussi magu xaadim suñu yaay nag mu ngi Amérique mère Ami Collé jërëjëf yow daal yow daal woo ci rek ndax boo liimee da ngay ni boo juumee dina am ñu toog tey dina mel ni bañ metti <laughs> de si dina garaaw trop <laughs> en tout cas merci beaucoup Demba kontaan nañ bu baax ci euh, ñëw bi nga fi ñëw yow it andil ñu dernière vidéo bi nga def ak Baba Maal euh, Baba Maal sa diggante ak moom den yaakaar naa Sénégal ñëpp xam nañ ko donc c'est très normal nga def ak ñoom dina ñëw dina ñëw seet si gars yi ko uh-huh. trop vraiment Marie Gueye merci beaucoup uh-huh. euh, mi. Euh, euh, walaay nee naa la boo liimee juum. bilaay Mintu Diop sama xarit la dinañ la mere de. Mintu Diop looy wax waa koñ ba. jaajëf kontaan nañu su ma ko wax waa koñ ba merci beaucoup. ci yow baax a baax donc toogal ak ñun ana